ci at mu ñu ne euh, muy 2024 bu ñuy xool yokkute bi ci yeneen réewu Afrique yi gis nañu ni Sénégal euh, am na yokkute goo xam ne dina toll ci 7 point 1 pour 2025 yokkute bi dina dem ba ëpp 10 pour loolu mooy woon ni que réew mi yokkute bi mu ngi ci yoon bu baax loolu yëpp bu ñu koy méngalee di ko saytu won na ni que réew mi mu ngi ci yoon wu am solo te loolu jar naa rafetlu. et